dëlli nag jàmm yëglekaay yi ñu xëyee ci bëccëgu tey jii xëy nañu biral rek recours yu ñu ne rek déposé nañ ko ca conseil constitutionnel ngir rek validation ci yenn ci ay liste yi nga xamante ni intérieur da ko daal di rejeté mandataire yu coalition yi nag fi mu ne nag ñu ngi daal di réclamer ngir conseil constitutionnel daal di rek valider recours yi nga xamante ni DGE da ko bañ ba noppi intérieur daal di ko publier coalition Benno Bokk Yaakaar mi ngi noonu di attaqué liste Yewwi Askan Wi gëm bopp ak Yewwi Askan Wi di attaqué liste ñi nga xamante ñoom ñoo bokk yaakaar le témoin quotidien moo ko xëy bindee ni mel fi mu ne nag jàmm réew mi mi ngi ci loxol ñi nga xamante ñoom ñoo di waa conseil constitutionnel bu ñu sikkandikoo ci le quotidien bés bi le jour daal ko feelu ne rek fi mu ne nag conseil constitutionnel moo ci des waaye nag laata ñu ciy yegg nag fi mu ne waa yeewi askan wi ñoom de taxaw nañu tem ngir ajuma jële rek ñu daal amal ab manifestation bu rëy ngir ne dañuy wili pande mobilisation manifestation bi nga xamante bu ak bu yeewi askan wi bés bi le jour di ñu xamal ni bi nag ndaw yi bokk ci APR muy rek parti bu bokk ci benn bokk yaakaar ñoom ñoo ko daal di amal waa benn bokk yaakaar ak waa yeewi askan wi ñoom fi mu ne kenn ku ci ne déposé nga recours ci conseil constitutionnel bi nga xamante ni fi mu ne nag waa gëm sa bopp itam ñoom daal nañu dugal beneen recours vox populi yéglekaay moo xëy bind boobu lépp xabaar laa officielle la grande coalition wàllu Sénégal bi nga xamante ni président nga woon gu Sénégal di maître Abdoulaye Wade moo ko daal di diriger ñaawlu na bu baax baax li mu gis ni état moom la nekk di manipuler administration bu Sénégal ngir rek mu taxawoo ay tànk yi nga xamante ni dana ko arranger moom état Vox Populi yégle kaay ne lii nag moo métti gaayu Abdoulaye yi nga xam te ñoo tënku ci coalition wàllu Sénégal bi nga xam te dañoo gis ni administration bu Sénégal dafa jeng te rek tànk yu mu taxawoo lu dul lu état nekku ci le vrai journal di xam ne nekk administration Sénégal dëggantaan dañ ko nekk Boris Diom nag mi ngi daal di sukkandiku ci ministère intérieur ngir daal di néewal doole ñii di waa l'opposition ba rek daal di dooleel ñi nga xam ñoom ñoo di waa pouvoir ba le journal ne lii mooy dëgg nañ ko wax nag waaye nag ak li xew nag fi mu ne tànk yi nga xamante ne administration Sénégal taxawul na ko rek dana tax doole gi nga xamante ne cër gi ñu ko jox muy rocceeku ndànk-ndànk turbine yëgle kaay moom daal ñu xamante ñu bi nga xamante ne Macky Sall ak moroomam dara critique yëgle kaay ne waaye nag coow li ak lu munti xew nañ jàpp ni rek askan wi ñooy ñu ciy gën a loru te seen yoon nekku ci rejeté bi nga xamante ni rek rejeté nañ ko liste Yewwi Askan Wi Walfadjri Quotidien du ñu xaman ni a ñaari weer kot des ngir ñu amal yi leeg élection yi ñu war a fali yi nag fi mu ne nag coalition yi nekk ci xëccoo gu tar gi nga xamante ni Sénégal rek moo ci war a gaañu jàngeen jëf